yàlla yéen a ngi gis xarit yi yéen ngi gis xarit yi yéen gis am di jàmm yi yéen ngi gis soppe yi ñoo ngi noonu di ko dugal ci ambulance bi ñoo ngi noonu di dugal Papa ci ambulance bi ñoo ngi noonu di ko dugal ci ambulance bi wax dëgg yàlla 15 heures la ñu joxante woon mbokk yi rendez ne moom lañ koy jébbal boromam 15 heures lañ waxoon ne moom lañ koy jebal boromam fa la ca almeeri Yoff yi 15 heures lañu waxoon waaye nag ñoo ngi nii ba léegi mbokk yi ñoo ngi nii fii wax dëgg yàlla ci hôpital bi ñoo ngi nii ci hôpital bi wax dëgg yàlla mbokk yi di leen di di di di xaar levi de corps bi pour ñu dem fële si almeeri Yoff yi waaye dégg ngeen yee quelques kadd yoo xam ne am na ñu joxe ay tey def témoignage yoo xam si nii si Papa Thione waaye nekk na loo xam si wax dëgg yàlla ñoo ngi noonu di ko dugal ci ambulance yi pour yóbbu ko ca almeer ya ngi noonu di ko génne la la la la la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 ñoo ngi nii di ko jébbal boromam Aliou Badara ñoo ngi nii di jébbal boromam sunu papa Thione Ballago Seck ñoo ngi nii di ko jébbal boroomam ñoo ngi nii di ko jébbal boromam Aliou Badara bu ko fexee bu la neexee mën ngaa yéeg. Euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi nii di jébbal boroomam sunu papa Thione Seck gis nañ fi ay doomam gis nañ fi ay ay magam gis nañ fi ay doomi baayam gis nañ fi ay mbokkam gis nañ fi ay kilifa gis nañ fi ay kilifa yoo xam ne ñëpp ñoo xam ne taxaw nañ euh, di di dina doy waar pour mu wàcc rek ba ñëw ci li nga xam ne mooy fi lañ koy ji jullee ñaanal ko jébbal ko sunu borom ku si nekk rek yaa ngi ñëw pour. pour am ci ay tànk yoo xam si ni wax dëgg yàlla ab taxaw boo xam si ni euh, ñëpp ku si nekk am nga ci yéene pour taxawu Papa Thione waaye ñaan jee am solo luñ ko mën a taxaw taxaw nañ ko ñaanal luñ ko mën a taxaw taxaw nañ ko ñaanal ndax fii bu ñu fi tollee ñaan rek lañu mën bu ñu tollee fii jaan rek la ñu mën ñaan sunu borom yërëm ko euh, yàlla na dajeeg malaakay yërmande waaw yàlla na dajeeg malaakal yërmande Papa Thione a ngi noonu ñuy wàccee si ambulance bi. Papa Thione a ngi noonu ñuy wàccee ci ambulance bi ah Papa Thione wàccee nañ ko ci ambulance bi wàccee nañ ko ci ambulance bi nit ñaa ngi buuxante Papa Thione wàccee nañ ko ci ambulance waaye nit ñaa ngi buuxante ah nit buuxante Wally Ballago Seck ngeen gis noonu mu sol verre yi ah nit ñaa ngi buuxante nit ñaa ngi buuxante ah fii instant bi ñu tel dañoo war a tudd yàlla instant bi yaa yaa ngi gis noonu wax dëgg yàlla mbooloo mi mbooloo mi mënatoo tee kenn mbooloo mi mënatoo tee kenn mbooloo mi mënatoo tee kenn kenn mënatul tee kenn ci mbooloo mi wax dëgg yàlla doy na waar doy na waar doy na waar doy na waar doy na waar imam bi ko war a jullee sax euh, moom moom lañ gën a mën a may pour mu taxaw mu taxaw ndax bu ñu defee nii bu ñu defee nii dina doy waa trop bu ñu defee nii daal dina doy waar trop ah na ñëpp ànd ak dal mbooloo mi dañoo war a ànd ak dal ñépp war a ànd ak dal wax dëgg yàlla ñëpp war a ànd ak dal ñu mën a tekk ñu mën a teg koor bi ñu mën a teg néew bi mën koo jullee jébbal ko sunu ndax te xam naa ne fi mu ne nii fu mu toll ku nekk naan sa morom toogal ku nekk naan sa morom toogal xam naa ne dina doy waa trop mbokk yi fa waaye toll fu ne ñaan lañu soxla parce que fu ñu bu ñu tollee fii nga xam si nii ñaan lañu ñu war a soxla tuddal ko yàlla sunu boroom ñaanal ko ñaanal ko rek la njabootam soxla ñaanal ko la àdduna soxla. ñaanal ko la Sénégal soxla ñaanal ko la monde Afrique euh, àdduna sax laa wax jamono juñ joxul ñaan rek la ñu soxla ñaan rek la soxla dañ daan wax naan euh, ab néew balaa nga koo gunge da ngaa war a jàpp ba sell da ngaa war a sell jàpp ba sel ah, wax dëgg yàlla nga mën a gunge ab néew waaye euh, jékki-jékki rek ñëpp jugandoo ñëw nii wax dëgg yàlla doo xàmmee wax dëgg yàlla ki sel ak ki sellul. doo xamee ku sell ak sellu wax dëgg yàlla ñëpp a war a toog ñëpp a war a toog ñu mën ko jébbal boroomam ñëpp a war a toog dégg nga coow li dégg nga coow li dégg nga coow li dégg nga coow li coow rek ngay dégg mais mënatoo dégg euh, baatu laa ilaaha illallah ndax bu tollee fii moom lañu ñu war di dégg ndax moom la bëgg a dégg dañu wàññ euh, dégg nga dégg nga Amady Badiane nee na nañu wàññi coow li. da nga Amadou Badiane nee na waa ji tingom ma dégg nga dégg nga nee na ngeen puus ngir yàlla dégg nga nee na nañu arrière ngir yàlla nee na nañu arrière ngir yàlla waaye nit ñi ay waay nit ñi nañu arrière ngir yàlla nañu arrière ngir yàlla waaye waaye waaye nit ñi ñi si boppam ñoo nangu ta arrière ngir yàlla bu ñu defee nii Amadou moo ngi naan ngir yàlla arrière leen. Amady mu ngi naan ngir yàlla arrière leen xam da war a jàpp ne kii fi bàyyeekoo kilifa la waaye coow li ngay gën a dégg baatu laa ilaaha illallah ndax bu tollee fii baat boobu lañu ñu war a soxla bu tollee fii am na baat bu ñu war a soxla bu toll fii am na ak war nañ koo delloo ci yàlla mi nga xamee wax dëgg yàlla moo ko jëloon war nañ ko delloo ci yàlla mi nga xamee wax dëgg yàlla moo ñu ko joxoon moo koy moo koy jëlaat. war yëkk yëkkati ay baat yoo xam si ni ku ko dégg di nga xam baat yi nga mujjee nañu dugal Papa xam naa ci biir jàkka ji Papa dugal nañ ko ci biir jàkka ji. waa gis ngeen mbokk yi gis ngeen mbooloo mi fi mu toll gis ngeen mbooloo mi mujjee nañu tëj bunt bi. mujjee na ñoo bunt bi mujjee na ñoo bunt bi dañ koo mujj dugal ci biir jàkka ji Alioune Badara boo ñu mënee won ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji لنا ba léegi organisation mënu fee am naa fi mbooloo moo xam si ni wax dëgg yàlla mu musuma koo gis ah kon euh, ma ànd ak suma caméraman Aliou Badara إله إلا الله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 Youssou Ndour a ngi noonu ah, Youssou Ndour a ngi noonu ak Bouba Ndour président ñoo ngi lay jaale président ñoo lay jaale Bouba Bouba Bouba Bouba Bouba Bouba une seconde une seconde rek président may ñu tuuti rek te yàlla ko tuuti rek une seconde rek yi gars yi dañu organiser wu ñu ñu fas yéene wax يسنى waaw kookoy président Youssou kanam kanam dinañu président président waaw gis nga nee na merci gars ci kanam waaye tamit Kéba ñoo ngi nuyu buñ la masawoo gannaaw bi ñu la masaloo njébbal sunu njaal ci kilifa gi fi jóge muy Thione Ballago Seck tey yan kàddu nga ñu mën a wax sa mag jooju nga xam mooy sa kilifa mooy sa lépp alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alamin sant bu baax baax baax baax baax boo gisee macha allah mbooloo mi fi ñëw troisième âge deuxième âge ba ay xale sant yàlla nag trop trop foo ko natt weesu Kéba euh, Salamation dëgg yàlla na métti na trop nag métti na trop métti na trop waaw li bàllaa sekk mu ngi génn gis ngeen mbooloo mi waaw ko sekk mu ngi génn waaye mbooloo mi wax dëgg yàlla mënuñu koo téye waa léegi demee côté bële Aline ba Waly Seck mu mu ngi génn waaye mbooloo mi nanguwuñ Waly Wally Seck mu ngi génn waaye mbooloo mi Wally sekk dugg na ci oto xam nga ne lii na gaay yi ziar na gaay yi Wally Seck dugg na ci otoom Wally Seck dugg na ci otoom a ngi noonu Wally Seck a ngi noonu dugg na ci otoom mu ngi noonu dugg na ci otoom